waaye xool leen tey borom alal yu bëri yi nan lañu mujjee da ngay gis ni kenn ci ñoom du ñemee génn wala ku ciy génn il faut nga ut garde corps wala ku ciy génn sa oto vitre teintée ngay def wala ci ñoom guddi la ñuy génn wala seen a génn bitim réew la parce que xamuñ leen foofu ñu dem Chine dem Dubaï dem feneen pour am bànneex mais bànneex boobu ñuy am day manqué lan moo tax day manqué fi ñu war a incarné li ñu am mënuñ ko faa incarné moo tax seeni kër day tëju seeni doom dañuy tëju seeni jabar dañuy tëju ñoom dootuñu ñemee génn sax di dem ci benn xew-xew kon ñoom ñi jàppoon ni alal mooy tax a am teraangay àdduna mooy tax a am bànneexu àdduna ñii day am nañ ko waaye amuñu teraanga amuñu bànneex boo seetloo ñi nga xam ne dañoo jël alalu réew wala ñu jël li ñëpp bokk nu ñu mujjee dañuy mujj di làqatu dootuñu génn journaux yi topp leen léegi nag fa ñuy mujj mooy dañuy nekk ci ay jafe-jafe moo tax boo leen laajoon ñoom ci seen biir ñu wax la dëgg-dëgg mooy dund ñu bànneex wallahi dund ñu bànneex koo ci seen ci ñoom rek day làqatu xam nga dund boo xam ne borom day làqatu bu la séenee daw boo ko séenee mu fexe nan lay def ba mucc ñemewul jàkkaarloog yow ñemewul dugg ci marché yi ñemewul dugg ci supermarché yi ñemewul dugg ci grande surface yi ñemewul dem fenn mais alal boobu tey ana lan la ko jëriñ li gën a doy waar alal boobu bu ci amee xew ñu bëri duñu dem gor ñi dañ naan ah diw day alalu sàcc la yore dana dem ba ñenn ñi seeni wayjur dañuy jot ak ñoom ndax alal ji ñu am du alalu ngor borom mënu koo bàkkoo mbokk yi boo xoolee ñooñu alal ji ñu am fitna bi ñuy mujj am mooy ñu ñuy ut pour ñu leen di garder alal boobu coono lay nekkaat da ngay mujj jël alal boobu yóbbu bitim réew di ko fu dénkaane wala doo nekk ci jàmm ndax alal bi ngay am léegi da ngay ragal ñu nangu ko da ngay ragal ñu fëkk ko da ngay ragal ñu agressé la guddi gi doo nelaw guddi gi lay nekkee calculer compte ba ca Suisse compte bi nekk Néerlande compte ba ca France nangam nangam nangam guddi gi nit ñi dañuy nelaw baadoolo yi ñoom tëdd nañ dix heures nelaw nañ xaran gént amuñu benn problème yow dootoo gént parce que doo nelaw amatoo jàmm guddi gi doo am jàmm bëccëg bi ku mën a yendoo làqatu bëccëg guddi doo am jàmm kooku yaa ngi ci fitna moo tax borom bi ne yaxsabu anna maalahu axlada moom foogoon na ne alal moo koy tax a béel fii ci àdduna ndeke alal nekkul teraangay àdduna allahu akbar moo tax benn waykat doon wax ni gisuma ni texeg dund dëgg-dëgg mi ngi ci dajale alal waaye texeg dund mooy koo xam ni dafa texe ci boppam ki texe ci boppam loolu nag boo seetloo yàlla ñi mu ko may xamuñ ko muy baadoolo yi ñoom ñoo ko am mais baadoolo yi xamuñu loolu ndax baadoolo yi mooy ñi néew doole ñoom it am am la ñuy uti ku dem ba àgg ci am am da nga xam ni ndeke am am taxul mu neex lool ndeke du alal mooy indi une vie heureuse ñeneen ñi ñoom dañoo jàpp ni dund bu neex mooy nga siiw nga am tur nekk benn star moo xam waykat la wala footballkat la wala leneen da ngay fekk ñooñu it nag ci dund gu metti la ñuy dund soo doon déglu star yu mag yi nekk ci àdduna bi ñi dugg ci islaam buñ lay nettali ñoom ba ñu tollee ci seen digg ni ñu jafee woon ak tay bi ñu tuubee fan la ñu mujj da ngay gis ni ñooñu ndeke la ñu jàppoon ni may mooy bànneex du bànneex ñoom ñooy toog di nettali seeni jaar-jaar ndax dund goo xam ni jafe-jafe kese la yaa ngi am tur waaye tur boobu lu mu la jural ay fitna di dund mbugal yàlla di la booleeg ay jigéen ñu lay fitnaal ay xale di la fitnaal am sax njaboot boo xam ne mën nga leen a digal ñu def amul tey xool leen kii ñuy wax Bill Gates tey day tollu temps xool ko moog jabaram fitna bu dul jeex tey ki nga xamante ni moom moo sos li ñuy woyee Facebook tey xool ko moog jabar ji séparation de corps nga xam ne tey li mu am ci alal ni mu toll jigéen sax mënoo koo yilif yore milliards yu dul jeex mënoo yilif sa jabar mais loolu bànneex boobu lan lay jëriñ ñenn ñi am fitnay doom bëri alal ba pare seeni doom nekk seen fitna ñenn ñi am fitna ñoom ci seen bopp da ngay fekk ni ñooñu dañuy xat dañuy tëju dañuy nekk ci ay jafe-jafe ñenn ñi jàpp ni nag teraangay àdduna mi ngi aju ci ndombal tànk ndombal tànk boo nekkee président da ngay tedd vraiment boo nekkee premier ministre boo nekkee député boo xoolee ñu bari ci ñuy xëccoo réew suñ ca àggagul loolu rek la ñuy gis seen gisin yépp mooy non naa fexe ba nekk président jiite lépp am li ma bëgg tey laajal ñi nekk président ku nekk ci ñoom léegi xëcc nga xëcc ba jiite réew mais amatoo jàmm xoolee ma loolu tey nga jiite réew nekk président amatoo jàmm foo toll rajo yi tey ngal-ngal te nit ñi mënoo leen tee wax benn occidentaux yi ñoo la tiim mu mel ni benn plateau damier ñoo la naan defal lii ngay deflee sa waa dëkk naan du nii te doo ci mun dara fan la lay yóbbu da ngay mujj nekk di xeex ak sa waa dëkk ku yëngu nga dóor ci kaso bi foog ni kaso mooy faj fekk kaso di faj parce que mënoo tëj ñëpp ci kaso mënoo ko boo tabaxoon adduna bi yëpp kaso boo tëjee ñëpp kan ngay gouverner mooy gouverner too kenn di nga dem nga nekk président xoolal fi ngay mujj saa boo jógee di nga yóbbu trois cent personnes mais lii du teraanga trois cent personnes sooy génn minimum minimum quarante motards yi dañ la topp minimum sapeurs yi gendarme yi policiers yi ñeneen ñi ngay àndal say protocole say nangam pour nga génn yow ñemewoo sax dem ci marché bi wallahi ñemewoo ko wala boo koy def da ngay bàyyi ba guddi nga dugg ci benn oto di làqatu en tant que président ñemewoo ñëw ci marché di jënd parce que xam nga ne boo ñëwee ñu yuuxoo la ana teraanga ana li nga doon jaay nit ñi ana la taxoon nga nga nga saarit ana la nga jàppoon ni mooy teraangay àdduna fu mujj ñemeetoo génn saw sax ñemewoo ko nit di nga nekk njiital réew toll foo xam ni wallahi dugg sa toilette tuur ndox doo ko ñeme mais dund bi dund bu neex la non du dund bu neex léegi yow su dund yépp mooy nan laay def ba am jàmm nit ñi ñoom ci kaw dañoo jàpp ne yaa ngi ci teraanga yow mi ne ci kaw yaa ngi naan su ma yëgoon vraiment wallahi njiital réew yu bëri loolu la ñuy wax su ma yëgoon foogoon naa ni affaire yi da ngay toll ci biti foog ñi neex na boo àggee ba ca kaw ci ngay xam ni ndeke affaire yi daal dëgg dëgg dëgg dëgg ndeke du lañu ko foogee kon mbokk yi ndombal tànk taxul a tedd laaj leen ñi ko am sunu ministre yi woo leen leen ngeen laaj leen laaj leen ñi nga xamante ni dañoo jiite ay institution laaj leen ba ci magistrat yi pour nga dox najee kenn yombul de su ma nee magistrat yi nag mooy ñi nga xam ni dañoo yore ay tur yu mag yore décision yoo xam ne bu ñu waxee dox su ma ñemewoon tudd tur dinaa la tuddal tur ne la ndax di nga dox ba daje par exemple procureur kenn du dajeeg moom ci marché muy dugg fukki junni xelam xalaatu ko lan moo tax day làqatu li tax muy làqatu nag moo ko xam parce que def na yoo xamante ne jaar na yoon def yu jaarut yoon moo tax ñemewul dugg ci bitig bii jënd léppam da koy yónnee te xoola mooy procureur ku mu ne nañ la jëli ñu jëli la ku mu ne nañu la tëj ñu tëj la teewul bis bu nekk ñu koy wax lu ko metti te du ci mën dara parce que nit moomul notoriété lu ko neex am yàlla defalu ko kenn moomul loolu tey nga dox gis ñenn premier ministre ndax di nga dox ba dajeek moom déedéet te yow mii baadoola bi yàlla may la dund gu texe waaye doo ko gis yow it loolooy sa problème baadoole bi léegi lan mooy problème am moom am na li ñépp di ut mais gisu ko olof nee na bët li koy fatt borom du ko gis teraanga gënta rëy fu la neex dem loo bëgg a def def loo soxla def génn ci biti fii ak sa tànku neen dox ba ca terminus ba kenn amul ci yow soxla amoo ci kenn soxla waaw na ngeen def baaxeen bàyyi leen ci jàmm naka affaire yi xoola yaa ngi bég yaa ngi nay yaa ngi kontaan mais boo xalaatee mise la gën a non man vraiment waroon na am ola beneen borom oto moo lay romb nga ñee ko fekk moom mi ngi lay ñee yow yow yaa ngi ñee borom oto bi borom ran ji roofo bi yaa ngi ko ñee noo xooli diw otoom bu rafet bi moom mi ngi ci otoom vitre telte ñemewul génn sax ne la salaamaaleykum na chë vraiment bu ma amoon li kii am kon kenn ku nekk yaa ngi uti la sa moroom soxla yow mi ko am muy jàmm muy liberté xamoo ko moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nicmataani maghbuunun fihima min kulli abd assixatu walfaraag nee na ñaari xéewal yi gën a rëy ci kaw suuf dafa réer ñu bari xéewal yi gën a rëy ci kaw suuf ñu ne yonent bi xéewal boobu mooy ban mu ne assixa wér-gi-yaram xéewal bi gën a rëy mooy wér-gi-yaram mbokk nekk sa kër jóg rek dem jël bant bee gas wala nga génn dem bitig ba ñëw mooy xéewal bi gën a rëy borom alal bi ñemewu ko borom tur bi ñemewu ko star bi ñemewu ko ministre bi ñemewu ko président bi ñemewu ko ndax këram lépp dañ koy bancarisé pour moom dundatul ak dund waa quartier ñan lay dundal ñetti nit lay dundal ñett lay dundal ci kër gi ñett lay dundal ca bërëbu liggéeyukaay ba mooy ci biir kër gi président quartier kenn du dugg nuyu ko du dugg nuyu kenn est-ce que mi ngi ci jàmm yow la koñ bi nga dëkk da ngay xëy julli ji fajar dem jàkka ja ñëw dajeeg muus yeeg rab yeeg dàqante gaay romb alaaj alaaj na nga def na ko waa kër mbaa ñëpp a ngi ci jàmm xoola jàmm sante bu neex bi li muy wàññi ci yow président amu ko laaj leen ko fi mu dëkk këram buy génn du dox tànku neen buy dugg du dox tànku neen buy génn oto bu ñuul ku ko koy génne buy dugg oto bu ñuul ku ko koy dugal ana dëkkandoo yi ana ñu su amee xew sax ñemewul xew bu amoon xew ñemewu ko yow baadoola bi nga baas ci koñ bi paa yépp ñëw ñu tudd taggante waxante mos ngaa fekkee ngénte président ah borom tamaño wala borom bongo doo ko gis mukk parce que lan moo tax dunduñu ci jàmm jabaram lu mu bëgg-bëgg caaxaan munu ko léegi xool ko ñanañ leen lay dundal ñetti nit moom ak ñetti doomam ak jabaram ci kër gi mu jig lu ñuy nekkee ay dam yee kii kii ne xoola chaque jour jëmm yi ngay gis ngay gis amul benn changement loolu du dund bu neex su fa jógee fa muy liggéeyee palais ba wala bureau ba defal bul def loolu neexul yaaxi mais nga génn ci biti dox dañu mës a ànd man ak suñu benn xarit ñuy tooñante di waxtaan ni bay romb palais mu ne ma xoola waajee ni mu ne sëmm ak mbaxanaam mu xonq ma ne ko teraangaa ko tax def de mais amul jàmm mu ne ma ne ko ki ne ci biir fii ñépp naan mooy président moo gën a ñàkk jàmm ñemewul sax génn barrières yi ñëw ba fii ñemewu ko wala bu koy def fajar la koy def ànd ak garde corps ñëw ba lagon delluwaat yow ñëw nga ba romb këram est-ce que li nga am da nga ko xeeb mu ne ma déedéet ma ne ko gi nga li nga am moo gën a rëy ci kaw suuf ñoom daw nañ ba foog ñu teraanga mi ngi ci jiite ndeke teraanga newul ci jiite président yi ci àdduna bi yëpp laaj leen kenn ci amul jàmm billahi ladi laa ilaha gayru buñ la dee wax dëgg mooy ñoom fitna la ñuy dund ci seen biir yow yàlla may la asixa wér-gi-yaram nga xeeb ko lool mu may la faraag muy jot liberté yàlla may la ko te moo gën a neex ci mbir yi mbokk yi xool leen picc fu ko neex dem fu ko neex tag fu ko neex jaar lan moo ko ko may mooy li ñuy tuddee liberté soo amee liberté yaa ngi ci jàmm mag ñi nag dañuy àttee liberté ak ñàkk liberté ci ñaari baat fi ñu koy xàmmee mooy ki am liberté dara tënku ko ki amul liberté dañu ko tënk dañu ko tënk golo gi ci àll bi di yéeg ci garab bi di ca péelu xool ko ni muy ponkale ni muy féexe golo gi ñu jàpp indi ko kër président mbaa kër ministre xam ngeen lu ko fa téye du lekk gu neex de du ay garab de du yaatuwaay benn chaîne moo takk ndigg bi takk ko ci bant loolu ko fa téye loolu mooy manque liberté golo ba ca àll ba bu séenee bii toog tiim lekk yu neex mu naan lekk gee neex naa daw dem fa bis bu fa àggee dana xam ne la fa téye kii du lu ko neex xaw ma wax ji dégg nañ ko wala déet ah léttee golo gi ci kër gi muy lekk plat yi wër ko plat yi neexatu ba de mais chaîne bi ci ndigg li nan lay def ba génn ko loolu mooy problème am kon golo ga ca àll ga moo ko ëpp jàmm day daw fu ko neex dem dem te ndox ma yéeg ci garab yi mbokk baadoolo loolu la am ndax gis na ko loolu mooy problème moo tax wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuha yonent bi nee na dañuy xëccoo nguur di xëccoo fal di xëccoo àdduna innaha amaana wa innaha yowma alqiyamati xizyun wa nadaama wallahi responsabilité la diriger aw nit responsabilité la jiite aw nit waaye na ngeen xam ni bis pénc gàcce dong lay jural borom ak torox gàcce rek lay jural borom ak torox sa big bi nga yore di signé ay milliards réew di ci dem ngay signé di sàcc di dugal ci sa compte la fa nekk doo ko jeexal di nga ko fi bàyyee gàcce dee dajeeg yàlla am gàcce dem safara yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla benn big mooy décider xaalisu Sénégal yépp génn dem feneen benn big mooy décider xaalis Sénégal resté ci sénégalais yi nga jël sa bic war a signé luy dimbale sam réew nga signé luy dimbale say noonu réew ñuy jël sa àllu réew di ko yóbbu sa waa réew toog di ko wax te doo ci mën dara nga nekkee loolu nag commencé di jël di wàññi di denc di wàññi di denc la nga wàññi munoo koo jeexal say doom munuñ koo jeexal la nga njëkkante lépp li nga ci am. ñett la alal nguur ñett doo nga ci am li nga lekk mu rees yaa ko moom baadoolo bi ñun ñëppay lekk ku nekk ci ñun li nga lekk mu rees yaa ko moom li nga naan yaa ko moom li nga sol yaa ko moom amul beneen yaak ñëpp tolloo boo dee président boo dee ministre boo dee député yaak ñun ñii di dox ñoo yem lenn nga ñu di jiitee mooy nekk ca kaw ñu ne ci suuf ñun ñu ne ci jàmm yow newoo ci jàmm kon ñun bu ñu xoolee teraanga bi ñu yàlla defal mbokk lu rëy la moo tax jullit dafa war di ubbi bëtam di xool ñaan yàlla mu may la soxna su bëggewul ñu bëri ci nit ñi seeni soxna moo leen di dugal ndax li ñu bëgg moom mooy li feeñ moo tax firawn bi mu jiitee réewam lan moo yóbbu ci firawna alaysa li mulku misra wa hadihi al anhaaru tajri min tahti yow nan ngay nekkee buur ba pare yilif lépp ba pare taxaw di laaj sa bopp ndax ndax du man maay président mais kon yow xam nga ni affaire yi rëcc na la boo toogee ba naan c'est moi le président mooy nekkatoo ko parce que yow sa bopp yow da nga commencé douter ndax yow la wala du yow xaw ma wax ji dégg nañ ko wala déet c'est-à-dire yow boo xësee boo douter naan sa doom di nga xam ne maay sa baay mooy nekkatoo papa bu mat boo nekkee papa bu mat doo fi toog naan ko di nga xam ne maay sa baay pour lan pour lan muy xam loolu bu ko xamul bi mu demee ba tolloog yow nga naan ko maay sa baay amatul benn njëriñ kon boo demee nekk président dem ba toll fenn bi naan c'est moi le président c'est moi qui décide c'est moi nangam mooy nekkatoo ko naturellement da ngaa fay da nga suufee da nga wàcc da nga torox kon li nga mat boo ko matee toujours nag ki koy mat du ko laaj boppam soo nekkee un vrai leader bu ne ci kanam xam li nga doon toujours li ngay def nga di ko teg ci yoon doo toog di poser sa bopp ndax naan man la Oumar Sall wala du man laaj bi nga laaj amoo tontoom moo tax firawna lu mu wax alaysa li mulku misra xanaa nekkatuma président misra hadihi allah tajri min tahti lii di daw est-ce que nekkul ci sama suuf kon loolu dalay wóor ni ki jàppoon ni moom la ndeko nekkatul moom mbokk yi ñu bëri dañoo foog ni une vie heureuse mooy bëri njaboot nekkul foofu mbokk yi ndekee une vie heureuse mooy dund gu dal gu neex fenn nga ko mën a amee muy taqwallah yàlla nañ ko yàlla may ragal yàlla mbokk moo lay may lépp dal nga ne ci jàmm mën nga yenu cinquante mille problème mais kenn du la xool ba gis ko ci sa kanam loolu mooy li dal baadoole yi bu ñu fi dooga di jàkka ji gi ku nekk di raconter ay jafe-jafeem boo mu di sa bopp da nga koy fàtte di nga seen nit kanamam leer mu wax ak yow billaahi dépense bàyyiwu ko këram wala tey xëyul ndékki mais lan moo tax loolu gisoo ko ci kanamam parce que ngëm yàlla bi mu am ngëm yàlla nag secret bi ci nekk mooy al imaanu bil qadaai wal qadar mooy gëm dogal yi soo ko gëmee rek jeex na yow yaa ngi dund ci àdduna noppalu nga lan mooy dogal yi gëm ni ma sha allahu kaan wa ma lam yasha lam yakun li neex yàlla rek moo mën a am ci man li ko neexul du am gis nga loolu bu la dalee dootoo tiit dootoo ragal li tax nit di ragal dee dong la ku àgg ci dee jeexal ñépp am fit bis boo gëmee ni lu neex yàlla mu am looy ragalate ci dee soo gëmee ni yàllaay dogal li nga am ak li nga ñàkk dootu la def problème parce que da ngay xam ni journée bi lii laa war a am moom la mu yàlla jox ma noppalu moo tax baadoolo bi na ci jàmmam nekk ci salaamam am noflaay génn fu ko neex dem naan fee ataaya waxtaane gaa yi dajeeg nit ñi du am benn problème parce que dafa jël àdduna sànni ko ginnaawam patron bi am alal li tax moom problème dafa teg àdduna kanam bis bu nekk ci ay problème lay gis moo tax moom dalay ñee yow it nga di ko ñee mbokk yi borom bi nee na walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fataxnaa alayhim barakatin min alsamaai wal ard nee na waa dëkk ba suñu gëmoon yàlla ragal yàlla wallahi danañ leen ubbil ay barkey asamaan ay bunti asamaan barke bu ubbeeku bu barke bu ubbeekoo dana taw taw bi du lor nit du toroxal nit te danañ ko jëriñoo waaye su barke bu ubbeekuwul taw bi dana bëri nit ñi di loru te du leen jural lekk du leen jural naan mooy li ñuy faral di dal jamono yi taw di bëri nit ñi di génn ci seeni kër taw di bëri nit ñi di nekk ci jafe-jafe te mbokk yi taw tey bu demee ba jëriñatul baykat baykat bi war naa xool boppam lan moo ko dal ndax léegi baykat la fil xaqiqa wala nekkatul baykat keneen la gëm lan moo tax yàlla tuddee baykat kuffaar fa ajabal kuffaara nabaatu lan moo tax parce que ñu bëri ci baykat yi dañuy weddi dogalu yàlla toujours yàlla wan leen misaal waaye du ñu ko gis moo tax yàlla tuddee leen kuffaar kuffaar mooy kiy weddi kiy weddi li ñu ko defal mbokk ñetti weer ci kanam yaa ñëw fekk suuf amul dara nga ruuj ko lakk matt yi sànni ñëw indi gerte dugub suur ko fa lu tax nga def ko ngëm ndax jàpp nga ne am na borom boo xam dina taw mu meññ léegi nan ngay defee loolu ba pare nga war a yaakaar yàlla nga yaakaar Umar Sall est-ce que weddeetoo yàlla nan ngay mën a defee loolu nga jël sa alal suul ko ci suuf ba pare ngëm bi nga waroon delloo yàlla delloowoo ko yàlla nga jële ay pexe di ko def nga bëgg jël taw bi jël wërsëg jox ko mbindeef bàyyi yàlla mais yàlla da lay seetaan moo tax ma ne fa ajabal kuffaara nabaatu kon mbokk bokk na ci liy dimbale nit mooy ngëm yàlla wallahi xale bu góor bi amul dara dara dara moo ëpp jàmm bu amee ngëm ki am lu bëri moo ëpp fitna bu amul ngëm moo tax borom bi ne wa man arada an dhikri fa inna lahu maishatan danka wa naxshuruhu yowma alqiyamati ama wa man arada an dikri li gën a rëy lii tax nga am liberté am saada am jàmm mooy gëm yàlla tudd yàlla bis boo ko dummóoyu rek ci fitna ngay nekk fitna rek ci ngay dund yàlla ñu yàlla musal ci weddi yàlla weddi yàlla nag léeg-léeg nit mën na koo def ci jëf du ko def ci wax léeg-léeg mu def ko ci waxtu du ko def ci jëf waaye bis boo gëmee yàlla xam ne li la war da nga koo war a def li lay noppal mooy wërsëg dootoo ci sonn mbokk li sonal nit ñu bari mooy wërsëg wërsëg munoo wër a wër a wër a wër a wër ba tee ko loo xam ne dañ koy séddale kenn ku nekk sa wàll di nga ko jot jarul caalit moo tax wërsëg yàlla dugalu ci malaaka dugalu ci yonent dugalu ci kenn ku ko jege moo ko teel boppam wa ma min dabbatin fi l ard illa ala allahi rizquha xéewal wërsëg li lay wan ni su ko ñëpp amoon àdduna bi naqari nañ leen imaginer benn cité boo xam ni ñëpp milliardaire lañ benn cité quatre cent personnes quatre cent villas ñëpp nekk milliardaire cité boobu dina am jàmm xam nga loolu du ko am léegi milliardaire bi boo fi ubbee looy jaay ku koy jënd milliardaire bi boo génnee bëgg a yónnee café ku la koy jënd da ngay romb sama morom milliardaire di ko yónnee café comme looy ma fonton gis nga kon yàlla il faut mu njar mbir yi moo tax koñ bu ne carte bu ne day am ñu fatanante comme escalier lay doon ñii am ñii topp ci ñii topp ci ñii topp ci ñii ci suuf ñi am ci kaw bu ñu foog ni ñoo gën ñi ci suuf de ñi ci suuf bu ñu xeeb seen bopp parce que bu dul ñoom ñii du ñu exister noonu la yàlla rabbee àdduna bi moo tax ku fàtte li la yàlla teg ci dund bu naqari ngay dund mbokk yi as saada al xaqiqiya hiya ibadatu llah texe bi gën a rëy mbokk mooy dellool yàlla sa bopp mooy jaamul yàlla yaakaar yàlla wërsëg liggéeyal mais nag ndax liggéey dina ko joxe wala du ko joxe foofu la problème bi nekk borom bi ne na famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur dox leen uti leen waaye na ngeen xam ni dekki moo ci topp lu tax mu teg ci deppi kon yow mi di uti wërsëg soo xamee ni dekki moo ci topp li ngay uti di nga ko lewal ndax da nga dee te boo dee da nga dekki boo dekkee jàkkaarloog yàlla mu àtte la foofu nag la baadoolo bi di xam ak jullit bi xam ni ndekke lu ma def sama ginnaaw dee ngi ci ginnaaw dee dekkee ngi fi moo tax muy xool li muy am ni mu koy amee fi mu koy amee ki xamul nag moom day jàpp ni naa am naa am naa am naa am dem di dajale di dajale ba ñëw yowmal qiyaam dis gann ndax ay alal jàmbur lay dajal mbokk yi borom bi ne na àjjana yowmal qiyaam ki tax mu defar ko te ki koy moom mooy baadoo la tilka daarul axira najcaluha lilladina laa yuriduuna uluwan fi l ardi wala fasaada lu mu ca teg wal aaqibatu lil muttaqin yàlla nee na kër gële ca àjjana yàlla nañu fa dem yàlla nañu yàlla wërsëgal ñu dem fa nee na tilka daarul axira kër gële ci àllaaxira des nga xam ne ku fa xës ba dugg dootoo génn najaaluha nee na danañ ko def lilladina laa yuriduna uluwan fi l ard ñi bëggul rëy rëylu ñi bëggul kawe kawelu waaye wala fasaada ñu ne ko yàlla lu tax mu ne wal aaqibatu lil muttaqin gis nga baadoolo bul mer yaay doon ajjana yàlla nañ ko yàlla defal yàlla nañu yàlla defal tawfiq kon suñu doon résumé lépp mooy góor ak jigéen tënkul ci li la yàlla sant moytul li la yàlla tere sàmmal sa ngor am sa personnalité dund dund du bu diin dee dem àjjana yàlla nañ ko yàlla defal allahuma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma aatayt wa qina bi rahmatika sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadillu man walayt ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت يعني يا دفل ني جام دفل لك ان شاء الله قوموا الى صلاتكم
كما قال عز وجل ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله كذلك نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر الواجب أن يكون أن تكون الأمة الإسلامية مذهبها مذهب السلف الصالح
نحن نتبع الاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم